seex bamba am fa yaare at wey tuuba sanc fa haama wasa si ndaw kooba keroog la may daaru salaam jolanta musa fa fukki at ñoñam di santa juróom yett la am ci at arafi tuuba la mëneesu koo jot mi at la seex yilif minal muridiin tisxan wa tisxiina mu téeméeral leen ca moomaat la ko bu ma sàll ak Ibra Fatim ñaan ay sàll mu bañ ñu naa ko lee nga tàggoog mbooloo mbaate nga génn réew mi tey jëmbeelu keroog da ni kama seexal falu leen dag yenitis mu naa murit yi fayu leen keroog ka joorate badar ja dekki ndekoon ba tey ab ceddo dootul tekki ca moomaat la sañ ci dajale fay si xaari wal kibaari ñu di ko yéem mu daldi sañ ci càqami ci xaama tey sasin di rey ñuy sàqami ci xaama sasin la sañ ci gaawaan am na fa fanweer ak juróom di baawaan li anta def ci gaawaan mënee su koolim duu si géej day atam ci duniyaa leeram ya jolli na ba yaa ca moomaat la sanc kër fa ñaaxeen tabax fa kër jëndati kër fa janxeen boole na kër gaag màlle saw seexam ba jox Mustapha Mbakki yu may taawam ba ca moomaat la sanc kër fa njurbel tabax fa xombal naar ya diñ ko jërfal ñu naa ko deet mu jënd kër tuubaatul sanc fañ sa njara di sàmmar maftuul ñu naa ko deet mu sañ ci kër tuubaatul ñu naa ko déet mu jënd kër tuubaatul sañc fa sanjara di sammar maftool ñu naa bayit mu dal di sañc ndéem saar seexal fa ibrahima ja sulan waar ca yooya fan la jënd kër ti waawoon dem bir ngir mag ña woon ca baa seex am fa yaare at wey tuubaa sanc fa xaama wasa si ndaw kooba keroog la may daaru salaam jolanta mu sax fa fukki at ñoñam di santa nit ak juróom yett la am ci ay at arafitu baala ma ne su mi at la seex yilif minal muridiin tisxan wa tisxiina mu téeméeral leen ca mooma at la ko bu ma sàll ak ibra saar di ñaan ay sàll mu bañ ñu naa ko lee nga tàggoog mbooloo mbaate nga génn réew mi tey jëmbeelu keroog da leen ni kama seexal falu leen dag yenitis mu naa murit yi fayu leen keroog ka joorate badar ja dekki ndekoon ba tey ab ceddo dootul tekki ca moomaat la sañ ci mbàkke bëri dajale fay si xaari wal kibaari ñu di ko yéem mu daldi sañ mbokk yi maa ngi yëkkati kaddu yi jóge ci Serigne Mbacke Madina moom Serigne Modou Rokhaya mi nga xam ne moo ànd ak commission bi yor wàllu mbale mi te Serigne naa moom Serigne Modou Alim ne ci bopp bi ànd ak sëriñ Makhtar Wade ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal. ñu doon def bis bi nga xam ne moom lañuy ñuy gàttandoo bis bu mag bi te mooy jéem a setal dëkk bii di Daaru Salaam loolu nag yàlla dogal bi màggal gi jub ñu defoon ab CRD ca njaarim ci kanam gouverneur ak préfet ak chef de service yi fa nekk yépp ci ndigalul nag sëriñ Abo Mohamed mi nga xam ne mooy jëwriñu Daaru Salaam di xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun ñuy ñaan sun borom mu gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram loolu bi ñuy lim li nga xam ne moom lañu woo ci màggal gi tuddoon nañ ci lu jëm ci wàllu mbale mi foofe it góornóor jëloon na ay responsabilités yëgal ko commune bu Mbacké ci njiitul sëriñ Mor Anne Gueye mi nga xam ne moo fa teewaloon monsieur le maire Gallo Ba waaye yëgal ko waa UCG ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu setug réew mi loolee ba nu ñëwee yëkkatiwaat nañ sunuy jéego sëriñ bi yónnee ci soxna Astu Mbacké moom sëriñ Abdullahi moom sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ma ànd ak sëriñ Jiili ñu dem fa yëgal ko ko waaye mu yónnee it ci maire bu Touba monsieur le maire Abdoul Ka yëgal ko ko demoon nañ it ci waa daayira Touba ca kanam yëgal leen ko sëriñ Mbàkke Madina ni mu ko baaxoo def ginnaaw bu mu ko yëgalee njabootu maam Cheikh Rahima Fall gi. yëgal na ko it waa daayira Matlabul Fawzayni yëgal ko soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe ak ñi nga xam ne soxna May Mbacke mu sëriñ Moustapha Caytu tey jàmbaar ci liggéey bi ànd ko nag ak mbooleem kuréeli set setal yi nga xam ne ñu ngi ci diggante Touba ak Mbacke waaye itam sëriñ Fallitoun di jëwriñ fii ci sañc Daaru Salaam waaye di kenn ci njabootu Cheikh Mahmadul taxa am lool taxawaay ci Daaru Salaam moom itam ànd ak mbooloo mi yépp ñëw fi bi nu ñëwee nag yàlla def na sutura la ñu bëggoon lépp am nañ ko mooy dëkk bi set na wecc ñuy jiital nag ci cant gi soxna Astu Mbàkke moom sëriñ Abdoulahi ci taxawaayam ak doon gi mu doon kenn ci njabootu maam Cheikh ndax soxna Daba moom maam Cheikh Anta mi ko meññ moo taxaw ñaari taxawaay yépp ànd ak mboolem mbooloo mi nga xam ne yàlla boole na ko ak ñoom xam ngeen ne soxna maam Issa lu kafe ma nga ca waar wa ca Sarsara waaye teewut mobilisé na mbooleem ahlu kafe ñi fi des ca demuñu ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ci liggéey bi waaye di sant nag. société bi nga xam ne mooy UCG ndax ñoom kat engagement yéen jëloon ca CRD ba ba nu ñëwee waxoon nañ ne ñoom kenn du leen soññ seen bagage yépp andi nañ ko waaye indaale itam seen jumtukaay yépp ànd ak ñun ci liggéey bi ba liggéey bi mel ni nga xam ne moom lañ ko bëggee waaye itam nag commune bu Touba. waaw soxna Mbacke gaawaan moo teewal soxna imaam Isa waaye nag commune bu Touba monsieur le maire Abdou Lahad xam ngeen ne moom ci àjjuma ji rek la ñëwoon wax ne sëñ aboo noo ko bëggee sëriñ aboo woon nga ko jullig jumaa ji yow jéggal nañ la ndax sa wàll ma ngay xaar ca màggal ga waaye teewut na mu ko daan defee na la ko defee sëriñ maam Cheikh Ka ba mu xëyee yabal na peel bi yabal camion yi boole ko la ca war ca gasoil lépp mu def ko waa Touba ca kanam xam nga ñoom it sëriñ bi waxoon na leen na yéen moom yéenay sama commune mbooleem matériel bu ñu am muy peel ba oto ndox ba camion yi def nañ ca gasoil yabal leen ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi waaye nag ñi nga xam ne ñoo moom màggal gi ndax Daaru Salaam ci biir commune bu Mbàkke la bokk te kenn nattabliwu ne ci quartier yi mag ci commune Mbàkke la bokk lu dul nag quartier Mbàkke xawar ba nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk a sanc moom la fa ay maamam sancoon sëriñ bi moom bi mu ñëwee Daaru Salaam gi la sanc waaye sëriñ Muudu Maamoon moo tànnoon boole ko ci commune bu Mbàkke loolu nag yaakaar naa ne kon màggal gi màggalu commune bee ñoomit sëriñ naa mu sëñ Mudu Alim ak soxna Rama teewal nañ leen fi ñoo ànd ak seen jëf ju yaatu kon ñi ngi leen ci sant di ko jaarale ci ñoom mu jaar ci euh, monsieur le maire Galaba waaye njëkk jaar nag ci Mor An mi nga xam ne moo ñëwoon ci CRD ba di sant it waa daayira Daaru Salaam yi muy kuréel yi nekk Daaru Salaam yépp ak sanc Daaru Salaam ni ma ko waxee woon ci teewaayu sëñ Fallou Tine ñoom ñëpp mbootaay yi ko wër yépp mbootaay yi nga xam ne ñoo wër daaru salaam ak sanc daaru salaam ñoom ñëpp sëriñ bi sant na leen lu jëkk ci àjjuma ji ndax mobilisé wu nañ toll ci junniy nit ak yu tegal ñëw ànd ak sëriñ bi ba nam ko bëggee woon ci àjjuma ji mu amee ko noonu waaye ñoom ñëpp it àndaat nañ ñëw ci mba wàccaayu màggal gi ci mbala mi ba dëkk bi set wicc te xam ngeen ne sëriñ bi waxoon na ne sama dëkk bii di daaru salaam ak tubaa ku ci setal lu mat ab tëraayub nit ma setal la ciy bàkkaar boo duggee ci bàmmeel kon yaakaar naa ne ku setal dëkk bi tàggoog bàkkaar yi àdduna ak yooyu alaaxira kon yàlla nañ ko ci yàlla defal association yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp nag sëriñ bi sant na leen sëriñ aboo daal wax na ne màggal gi mooy dëgmal mooy bis bi sëriñ Touba liggéey li woon boroomam ba liggéey bi jeex mu ñëw yenneeku ko daaru salaam te yenu waatu ko jëm faneen lam àndaale woon ci ab sërite ba muy jóg suñ borom daf ko ne ku tukki tukki bu yàgg day booy dellu war ngaa yëtaale sa njaboot ab sërite ma bëggoon nga wax sërite boo bëgg ma yóbbaale ma jox la ko nga yóbbaale ko mu ne ko benn sërite laa bëgg mooy ijhal rujuhi ila xawmi saadatana wal takfina yow ma jamhil xalqi sama dellu gii may delluwaat daal ca sama nit ña sama nit ña nag la wax su ma àggee na doon seenu texe ñu tàggali koog texe di àdduna ak boog alaxira ca sama nit ñooñee boo del suwaatee ba muy wax naan lahu taala rujuhi min idaaya ila daari salaami lati naa bi tajdidi danaa jógewaat ci tukki bii delluwaat ci sama dëkk ba ñuy wax daaru salaam ca fas naa ko yeesalaat yeesa yeesalaat yeesalaat googee nag yaakaar naa ne ñun ñi ci lañ tàbbi ku xool jumaa ji xam ne jumaa yi yeesalaat la 18 décembre 1884 lañ ko rëddoon yaakaar naa ne ku ñëwaat fii da nga xam ne jumaa gënu ko gënu koo rafet jumaam ëpp ko waaye jumaam mëgu ko ci yoonu murit loolu ci ak tajdiid rek la bokk muy ak yeesalaat lii ngeen di def it muy bale dëkk bi ba mu set bokk na ci ak yeesalaat ndax set sun borom moo ko santaane an nasaafatu min al iman set dafa bokk ci gëm yàlla sël mu sax boo xëyee danga koy def waaye du tee lal bi nga tëdd dangay ngay lal di darab bi lalaat ci beneen mbubb mi nga sol da nga koy summi solaat beneen saw yaram danga koy sang suba ak ngoon loolu kon moom ak cet ak doomu aadama ñoo ànd moo tax dëkk bii nii ngeen ko setalewaat sëriñ Abo nee ne mi ngi ñaan yàlla mu setal leen ko ci ay bakkaar te bu leen ko setalee ba noppi nag yàlla buñ leen ko bindalati mi ngi ñaan dëkk bii nga xam ne ci la borom ñaane woon jàmm ical salaamatan taduumu yaa salaam liya walil ayaali fi daari salaam sëñ Tuubaa neen na ma yàlla defal jàmm ju sax dàkk ci man ak sama njaboot gu nekk Daaru Salaam jàmm joojee sëriñ bi nee na kuy jóg yàlla nga ko yóbbaale koo romb yàlla na ko yàlla defal jàmm nee na mi ngi ñaan suñu borom mu defal ñu nag xiinu xéewal xiinu xéewal ndax sëñ Ablaat nee na woon xéewal moo mat a ñaan waaye naataange moom foo ko mës a dégg nee na bekkoor topp na ci ba mu mujj wow koŋŋ xéewal nag mooy doon loo xam ne waxtu ne day tooy xib di sotteeku te reen ba nga xam ne moo meññi garab ba ba muy tooy bëtub doomu aadama du ci tege ba mën koo dal kon nag mbooleem ku ñëw ci mbale mi yal na la yàlla defal xéewal boobooy ñibbi lépp loo yéene woon suñu boroom kàtt na la nga ba nga man ko sëriñ bi nee na xolam sedd na mi ngi soññawaat ci màggal gi tey ñaan waa dëkk bi nag waa dëkk bi nañu xam ne nit ñi ñoo génn bale ko bi ñu ko balee ba noppi rek waaye bu ñu ko tax taxalaat nekk bañ bale ba noppi ngay dagg say garab di génne. wala génne woo sa mbalit bañ bale ba noppi nga di ko génnewaat ci tëli bi xam ngeen ni feeg bi su màggal ga waa ICC amuñu jot waaye di leen defalaat mbalit ci tëli bi nag bokkut ci ak civilisation waaye bokkut ci ak ay teggin ku amati mbalit la ci des def ko ci ay xotti saako nag denc ko ba màggal gi jot nga sug koo génn ba màggal gi jàll nga génn ko ñu balewaat ko ca mbale boolewaat ko ci mbaleem ñaareel mi waaye dëkk bi set na te ay jàngkati alquran ñooy ñëw ginnaaw suba dimanche bi ñiy jàng si alquran nag ci fu set dong lañ war a tegee ndax laa yamassuhu ilal mutahharun alquran moom du tege ci lu laabul kon nag rikk waay bu leen taqalaat dëkk bi ku naan ak mbuus ba noppi sànni yaa ngay taqalaat mbuusuk ndox boo ko naanee ba noppi téye ko ba gis poubelle nga def ko ci boo yoree sa xol konetub caaf ci pénc mii wala nga denc fi sa gàncax keesu mbiskit bala ñoo toogaat ginnaaw suba pénc mii feesaat dell ak ay mbuus loolu doo ay teggin mooy tundu ko leen ko yéen ñiy toogee ci pénc mi lu ngeen fi jëfandikoo bu ngeen noppee balewaat leen ko yóbbuwaat ko jàngkati alxuraan yi ñooy ñëw ci ginnaaw suba dong la ñuy ñëw te nag bokkul ci ab yar ak ay teggin ñuy setal ngay taqal loolu moom ak nite fekkiwu ko ñu ngi leen di sant bu baax di leen jéggulu di waxaat ne ñun ñëpp ñu ñaanalaat sëriñ Abo yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram sëriñ Mbàkke Madina nee na kàddu yi mu yëkkati nag ci kàddu kilifaam di sëriñam te di jëwriñu sëriñ Abo di sëriñ Cheikh Anta Mbàkke la koy waxee ndax mooy ki nga xam ne moom la sëriñ bi tegoon liggéey bi lépp ci loxoom mu yabalaat leen ànd ak sëriñ Jiili moom sëriñ Abo ànd ak sëriñ Seexuna mu sëñ mu daalim ak mbooleem ñi leen di jàppale sëñ Maxtaar Wadd ak sëñ Mamorum sëñ du Jàndum ak mbooleem njaboot gi yépp ñu ànd ci liggéey bi yàlla ñu yàlla may ñu mën koo àggale ci barkib sëriñ Muudu Maamun te buñ ko àggalee yàlla nañ ko yàlla nangul te bu ko nangoo it yàlla na ko yàlla def ay xéewal ñu sant bu baax sëriñ As Gueye di magum taalibe ne ci liggéey bi moom ànd ak ñun ci liggéey bi kon ñun ñëpp ñu maase tàllal sëriñ bi ñaan